ngir top sen chaîne Jazboul Mourid. demal Google Tapez Jazboul Mourid. bésul ben émission mu yóbbu YouTube ci page bi nga abonné té activer cloche bi ngir am notification saa ñu dugalee suñuy vidéo sen chaîne Jazboul Mourid. di ngeen ko amit ci Facebook Instagram Twitter Jazboul Mourid. mi ngi ci waar wi ngir liggéeyal mam Cheikh Ibrahima Fall. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki talibé yi niñ ko defee woon. boobaak léegi toll na si ñeenti at xam ngeen ni teewoon nañ si barab yu tëdd yi di nag euh, barab yi Caaxa Njaay fii ci Ndar euh, ci Guet Ndar ngir nag euh, nemmeeku si kilifa yu mag yi nga xamante ni sunu borom dogal na ñu tëdd si barab yi te nag jamonoon teeg Serigne tubaa maam Cheikh Ibrahima Fall te amoon kóllëre gu réy gu nu seqoon. waaye nag xam ngeen ni njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi si barab yi tëdd incha allah bañ fiy gëj xam ngeen ni ab xeer lañ fi tegoon serigne Modou abdullahi Fall Ndar yalla na suñu borom dolli ngërëmam yokki leeram ta tan ci barkeem euh, jité won projet bobu waye suñu borom dogal tay mu jitu ñibbi ci wetu bayam ju tedd ja xam ngeen ni euh, njabotam ci njiitalu serigne Cheikh Bintou Fall diko ziyahu bu baax baax wëyal liggey bobu ba gis ngeen barab bi ni mu melone bañ fi ñew serigne Mamour ak tay jii soppiku na inshallah allah ñu fas tabbi ci biir euh, mbokk mi nga xamanteni Euh, kilifa la ndax nag euh, waajuram si ñu toppoon euh, maam Cheikh Ibrahima Fall di nag Baye Khadim Diop tey ji mu nekk si barab yi di ko saytu incha allah fas yéene am ak moom ay jotaay sëñ Mamour. jërëjëf sëñ Aline Badara Ndim di la jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bi ci taxawaay bi surtout fii ci ndar nga xam ne dox nañ lu sori ngir egsi fi lépp rek ngir feeñal liggéey bu maam Cheikh Ibrahima bi Babi Mouridina fii nag duñ ne gulet defe naa bii mooy sunu ay yoon yoon ñu di fi ñëw. di saytu barab bii nga xam ne njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall moo fi nekk lu tolleeg ñeent doomi seex Ibrahima Fall ñu ngi tëdd fii ci barab bi ci sunu gannaaw euh, lépp rek ngir euh, xam nga ne euh, Jazboul Mouride moom yéeneem ak pas-pasam mooy won leen lépp lu bokk ci maam Cheikh Ibrahima Fall Baye dina te fii ci ndar seex Ibrahima Fall dafay am wàccuwaay wu yaatu ni nga ko waxee njàmbaaru Cheikh Modou Abdoulaye Fall ndar nag moo waral lii lépp ndax moom dafa defoon yitte rek ci fépp fu mu dégg daray Cheikh Ibrahima Fall ko. ba tey jii njaboot gi itam di wéy di doxal loole ñu ngi ñaan sunu borom mu doole leeri mu Modou lay Fall Ndar waaye nag ci barkeb barab bii nag ak ci barkeb ñu baax ñii fi tëdd di njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ci la ñuy ànd ak murit yi nag ñaanal Serigne Cheikh fal jëmm suñu borom dolli ay leeram te dolli ay ngërëmam ba liggéey bi mu liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall lépp yàlla na ko fekk fee mu nekk ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall waaye ànd ak murid yi itam ñaanal bu baax a baax sëriñ di Fall xalifa sëñ maam Cheikh Ibrahima Fall Baye dina waaye di xalifab sëñ Modou Fall Mbenda ñaan sunu borom tamit dolli ko kàttan ak wér bu baax a baax a baax ba li mu bëgg a liggéeyal maamam ak mission bi ñu ko yan yàlla na ko yeggale ci sagoom ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina Serigne Bara ni nga ko waxee rek ndar moom Cheikh Ibrahima ko moom ndax xam nga ne këram a ngi nii ay ay ay ay ay ay mètre nga àgg muy fi nga xam ni moo doon école Cheikh Touré di woon kër gi mu dëkkaloon boppam fii yenn ci njabootam gën a fi jamono njabootam a ngi nii tëdd fii eh, waaye nag genn ndar moom tamit am nañ sens nag ndax li tax mu wax ko mooy eh, Cheikh këram a ngi nii ak njabootam ngi nii kon tam fii ne def na fi lu ne te Cheikh Ibrahima bi mu dikkee ñawkati pajaasi la dalaloon ndax moom képp la ko tedd ki yabaloon mu ñëw dal maam As Camara maam As barabam soriwut fii njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall am ab diir maam As na ko gëndal ndar ñu seq dex gi ndax maa yoo xaj ñu biir ndar Cheikh Ibrahima ñëw fii ci gàndar daa di fi dëkk waaye nag teewul nag Cheikh Ibrahima daan sanc ay barab ay wax nañ ko léegi côté lycée Sall di dégool suufam la woon ay balakoos te jigéen foo ne mu amoon fa parce que ndar dafay ñëwoon ngir liggéeyal ko ndax sëñ Touba da ko da koo wàcce ba pare waaye wàccewu ko ngir yabal ko Kajoor wala ay nu ngi koy waaye te ca njare gam dëkk waaye da ko wàcce yabal ko fii di première capitale ngir soppiwu ko aw liggéeyal nga xam na léegi eh, taxaan meek yooyu root meek yooyu eh, sëñ bi loolu la ko soppil pour lan mooy mu ñëw nag ngir ma ngir liggéey Cheikh Ibrahima dañoo dugg ci commerce daal di fii installé ay boutique yu bari jël ñenn dugal leen ci port bi ku mel ne Ami Diop ak ñooñu ñu ne ci poor ba eh, jël eh, maam Samba jóob ndar ñoom ñu ne ci daaray Pajaas eh, xam nga kenn ku ci nekk mu teg la ci barab di dox ba gànjul comme ni mu ko defee bi mu dikkee fii sa Sëñ Tuubaa joxoon ko ndigal na ko del doxantu guddi yi te noppalu bëccëg yi mu dox ba gis sañ Mbayloo gane ji ko ca Gànjool mu xëy jox ko boppam sëñ Modou Ndiaye ñaay topp sax sëñ Modou Guèye ñaay topp ca mbooloo mu bàbbeeku na ànd ak Cheikh Ibra te nee la moom képp fi ñëwoon waaye bi mu fiy jógee mbooloo ànd ak moom loolu day wane ne Cheikh Ibra it nag di koo xamante ne bii defaru gi defaru gi ko sëñ Tuubaa defar xol ba set eh, sell ku ko gis maanaam bëgg ko tax na mboolem kilifa yi nekkoon fii yëpp jaxasoo woon ak moom ñëpp da daan dem leen teel maam Ndiakha Cissé sëñ Mor Massamba Diéry Dieng maam As Camara El Hadj Ahmed sëñ Mor Saxeer Mbay maam El Hadj Malick Si ñoom ñëpp dañoo jaxasoo woon ak maam Cheikh Ibrahima Fall fii daan jëflante ak moom Baye Ibrahima ci am nee na daan nañ ko yendu sil Cheikh Ibrahima daan nañ yendu jil loolu lépp kon day wane relation boo xam ni maam Cheikh dox na ko fii ci ndar kon fii ci ndar daal barab la boo xamante ni bii Cheikh Ibrahima am na fi wàccuwaay Cheikh Ibrahima bëggoon na ko ndar Cheikh Ibrahima fi jiitu sëñ bi ndar it sëñ bi fi la ko bàyyi seex Ibrahima Fall te bi maam Cheikh génnee daa di dugg ci àll bi yëpp di sañ ay dëkk ay tugg ay ndaay ay Nday Fall ay guy reen fu ne Cheikh Ibra def na fa ay daara sanc ba ni mu demee ndànd fii la jógee di sanc di dem dem ay bëkku mba sëñ mba mbaar Diop Siga ca njukki di di di dem kon Cheikh Ibra ndar moom barabam la woon boo xamante ne bii doy na sëkk rek mooy bi mu fi ñëw moom képp la woon waaye bi mu fiy jógee mbooloo ko topp kon barab bu mat a saytu la ci li fi Cheikh Ibra def tey nag waa ndar Cheikh liggéeyal li defal leen loo xam ne euh, doy na sëkk ci lañ ko doon lañ doon wut ci ku tedd ki muy doomam yi tëdd fii tey yi di ay doomam waa euh, wax nañ lay soxna Boussa Fall mi nga xam ne moo sëñ Mbàkke Xari Jóoba bokk ndey ak baay mu ngi tëdd fii ak ñeneen ñoo xamante ne bii danañ ci dikk ci yeneen i jotaay di sant bu baax tey gërëm kon ñu fa yéene euh, leeral mbokki taalibe yi ki yore barab bi te si Moudou Ablaye teg ko fi mu indil ñu ay leeral ci barab bi. muy kon kon dañuy ànd ak euh, mbokki talibé yi tabbi ci bir barab bi inshallah fekk ko fa ngir mëna euh, sikh mom waxtaan ngir gëna xam lu leer si ñi nga xamanteni ni njabot cheikh bi rek gi nekk fi tëdd fi inshallah rabbi la ilaha illa la fal la ilaha illa la la ilaha jërë ngeen jëf mbokk yi kon sëriñ Mamour ndaw dugg si nañ si biir euh, barab yi ni leen ko waxee woon euh, si tàmbali gi euh, fii ci barab yi caaxa njaay yi fi nga xamante ni lenn si njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall fi la ñu tëdd xam ngeen ni bañ fi gëjee ak léegi barab bi ni ngeen ko gisee ni leen ko wane am nag soppiku bu baax a baax fekk fekkee nag sunu baay Xaadim Diop mu baay Cheikh jóob mu serigne mor pen de job <clears throat> diko ziar bax bax mom mi nga xamantene la sunu borom dogal muy saytu barab bi euh, ak liggey bu sel bi nga xamantene liggey nañ ko ko inshallah dina delu ak ñun ci tarikh bi ñan ci njabotuk mam cheikh ibrahima fall ñoo fi nek barab bi te liggey bi ba fi mu xam ngeen ni ci euh, loxol sunu jambar je serigne modou abdullahi fall ndar ci la nekkoon di ñaan suñu borom dolli ngërëmum bu wër a wër euh, gannaaw si biit njabootam mm, doon ko taxaw bu baax a baax si njiitalu Serigne Cheikh Bindu Fall ak mboolemi ay rakkam ñu ngi leen di ziar bu baax a baax fii kon ci ndar euh, kon euh, Baye Khadim ñu ngi lay ziar bu baax a baax fekk la fii mm, si bare bi caak ak njaay rawatina fi nga xamante ni fi la lenn si njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi nekk ndax mun na nañoo xam. ñan si njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi ñoo nekk fii lenn si taarix bi. Maodo Abdoulaye Fall Ndar moo waxoon ni ma bis bu nuy feeñ yow sëñ Xaadim Jóob daa ci xam dara te man damay am jàpp dama am téye si borom def ñu ngi feeñ bisu alxames si yoor-yoor lanu feeñ fekk maa ngi taxaw ci rond bii laa taxaw am ku ñuy wax kii ku ñuy wax Maxtaar Mbay Maxtaar Mbay moomu nag. maanaam barab yi nga xam ni moo nekk ndar nga xam ni ku faatu nekk ndar boo bëggee leeru ci moom ngay dem ci ñun denc foofu ci Touba doomu nag màggat mbay la moom yàlla dogaloon soxna sëñ màggat mbay moomu nag dama nekkoon taalib Serigne bu mag a mag a mag boo xam ne dafa ma wëlëre Baye Cheikh Diop la woon ci kaw noonu yàlla dogal ma xëy benn suba rek mu fekk ma fii li ma sëñ Xaadim ma ne ñuy wax sëñ Cheikh Bintu Fall moo ma yebaloon pour mu won ko leeru maam Cheikh Ibra Fall yi man ah la suñu mën Ablaye waxoon de am na suñu xaarim Jóob daa ci xam dara ci laa woo sëñ Bintu téléphone fekk ma nga tii jigéen ma ni sëñ bi kat am na ku ñuy wax Maxtaar Mbay mi ngi lay seet sëñ bi jël oto fekk mu fii moom sëñ Cheikh Bintu muy sëñ Bintu ak man ak Maxtaar Mbay ak yàlla rek ñu ñett bi yàlla doole nag bi leer yi feeñee nii fekk moom Maxtaar Mbay moomu bàyyi bi dafa daan wax naan kee mooy Cheikh Samba Diarra Mbay kee mooy Cheikh Malami Seck kee mooy sëñ Cheikh Coro Mbàkke kii mooy Maxtaar Njaay euh, man Maxtaar Njaay aareen da ko dafa daan jël sëñ mag bi wala sëñ mag bi la woon di ko ni ko kay sëñ Abdoulaye Jéeya kay Cheikh Malami as Cheikh Malami la kay sa as amal kay sëñ Cheikh Coro Mbàkke la di ko limal daal yu bare bari ni ko nag njabootu Cheikh Rafaal nag moom na fexe ñoom nga gën leen ràññee ñoom bu baax pour nu xam nga bi ñu ñëwee sama borom def ma jiitle ak sëñ Cheikh Bintu ak Maxtaar Maxtaar jiitu sëñ bi topp ci ma topp ci bi ma yegsee ni yegsee ba fii fekk fii fekk nu fi woon daara dara dara dara nee la meloon ne comme suuf nee rek kese yaa dogal nag ci kaw loolu sëñ bi ni ma sëñ Xaarim Diop toppatool barab bi ndax kat sëñ Modou Ablaye Fall Ndar moom boole woon na yow te yow baayam da doon sa wële baay kon nak dama bëgg barab bi na ko wattu di ko toppatoo bu baaxa baaxa baax a baax abdoulaye fane dal di tek ma fi si Cheikh Bintu say yu ñee ndar mu yóbbu ko ci mbokam yi wa ndax Cheikh Ablaye Fall ndar so na fa Wàdd moo ko jur lolé gis barab yi ndax mën nañ xam ban at la at mi nak gis barab bi nak japp ma ko xam da wara tollu ci ay juroom at wala juroom benn rek ba bo ba legi dal wa jamono bi nga xamé nak mam maam Cheikh da fa indi sama ñoom maam fi bi yàlla dogalee ci bayaal bi foofu maam Ousseyn mi ngi taxaw maam Mor Penda Diop mi ngi taxaw maam kii maam Yoro Faye mi ngi taxaw sëñ Babacar Diop mi ngi taxaw sama maam nag moo leen magoon lu xaw a bari mu ni ko sëñ Mor Penda si nga dëkk benn jëm nee ñi naan gettu ndar gettu ndar foofu day ñetti xaaj la rek xaaj bu njëkk bi mooy bunt bi dëkku gendar bi ci topp mooy dëkk bu ba mujj nag mooy dawlu waaye ñetti dang ñetti deel la ñetti deel yooyu Cheikh Rafa da wax ni dàkk dëkk dawlu dàkk dëkk dawlu suñu moo dam laay faa ndarit Cheikh Rafa dafa wax ni ca monument ba la ko waxee sama maam Mor Penda ngi taxaw maa ngi rafet ngi taxaw suñu kër Diop mu ngi taxaw maam Mor Sorang mi ngi taxaw mu ni sëñ Mor Penda mu wuyu ko mu ni ko jigéen dëkk bii ni jëm muy gendar ñetti deel a fa nekk ñetti deel benn bi dëkk bu njëkk bi fii ñu taxaw nii mooy dëkk bi bee ci digg ba mooy dàkk fa mujj ne ak ne mooy dawlu muy dëkk dàkk dawlu fi ñu toog Cheikh Fall moo génne loolu wax sama baay ni ka sama maam sëñ Mor Penda ni nga nag bayaal bi ñu taxaw nii muy si bayaal ba dee fee oto kalandoo yi taxaw ci sanc bi jëndoo kër Baye Mor Salam mu ni sama Baye Cheikh Diop sama Mamour yow sa doom ñoogul waaye mooy jënd pàkk bi yow yow maa Ibra sa doom mooy jënd pàkk bi pàkk bi ci topp mu ne ñuul wii boo ko jéggee tëli bi lay wax tëli bi mu leen rëdd ñuul yi bu ngeen ko jéggee masturang yow sa doom mooy jënd fii ni ko seigne Babacar Diop yow sa keur sa te jigéen lay nek yaa ngi deg bax sa bay juddu Cheikh Diop Moulanger ñu deg Cheikh Ibra Fall fii Cheikh Ibra waxoon sama baay jënd ko ñu tuddee Cheikh Ibra Fall ki ci top ala Cheikh fay la di mam mam Cheikh khadi fay bu sirif Assane Fall li seigne bi daa wax naan du wax luma leer luma leer rek lay wax ak la ma xam yalla dogal mu ni ke tëli bi boko ko yow ma sorong yow fofu ngay jënd te kenn ku ci nekk Cheikh Ibra Fall la tudde ñu jënd foofu yëpp Cheikh Ibra Fall la ñuy tudde suñu borom da daan def Cheikh yi da daan ñëw fii dafa amoon nag ay couleur yu bari waaw mel na que Cheikh As Camara mi nga xam ni sëñ bi mag bi daf ko yónni woon ci moom loo xam ne lii li ñëpp bëggoon Cheikh Ibra jël ko ci moom jox ko ku baax ki xam nga loolu dafa yàgg suñu moroom laa it daan na ma jël yóbbu ma ci këram teg ma ci këram di ma defal teraanga di ma defal xéewal di ma defal lu nekk ay tëbaski yooyu yëpp dafa daan boole doomam bu ñu ab laat muy ma nag sëñ Cheikh Bintu mii moom mooy sama taaw da bu nga xamanteeg moom nga jàppanteeg bu baax sëñ Cheikh Bintu nag ñëw yëkkati fii jox ma ko di ndigalal sëñ Modou Ablaye Fantara sëñ Modou Ablaye ni ko xaa mii sëriñam laa waaye magam laa sëñ Modou Amit it loolu la ma daan wax moo ma boole sëñ Cheikh Jëmb kon ñoom sëñ Cheikh Ndiaye ko jox sëñ Xaadim xam nañu bu baax suñ Cheikh Ndigal Fall yi yàlla dogal yi mu ngi denc sama doom dama koy tënku noonu rek waaw di leen baalu di leen bu baax a baax a baax ndax sax dañ ma xaw bett sax ba yi ma war a wax yëpp sax mënuma ko wax waaye nag foofu rek laa koy yemale rek di ñaan suñu borom nag guddal seen far yokk seen xéwal bu baax a baax seen yi yàlla na fi yàgg téwér ak taalibe yii ko fekkee yëpp yëpp loolu moom moo si nekk dama koy tënku rek ah, yow mii nag mm, waaw doom Baye Cheikh Ndaw Baye Cheikh Ndaw nag sëtam moo jur sa baay waaw kay moom daa moo nag wëlëre sama Baye Cheikh Diop lool sama Baye magum taalibe yëpp foofu daan daje képp koo xam ne kii amuloo moyen mën dem Touba sama Baye moo ay oto ñu dugg ci di yóbbu magum taalibe yi suñu boroom def euh, maam Cheikh Fall di wax sama ñoom maam di di leen yóbbu ñuy gonlu gonlu nag doomu ndar ñoom duñu xam gonlu waaye ajoor moom dana xam gonlu ñuy dem ca poor ba di liggéey yi maam Cheikh Fall dafa tàmm ubbi ay boutique dégg nga di def commerce di def lépp waaw daanaka sax ndar yëpp moo ko moom xëy na sax dañ ko eh, dafa bëgg laa bi rek taali bi rek ñu bari dëkk dëkk dëkk rek waaye yëpp moom mi fii ba gànjool ak yooyu yëpp moo ko moom te moo dimbali suñuy bàyyi suñuy ndeeg yëpp kon ñuy ñaan suñu boroom guddal seen fan yokk seen xéewal bu baax Cheikh Bintou Fall yàlla fi yàgg te wér mhm. ah Baye Cheikh Ndaw nag suñu moom dafa daan def at bu jot danaa ñëw sama kër baay bu fa ñëwee eh, nekk sama baay bu ko defee ñoom ñaar ñuy karanti di tooñante ñoom ñaar guddee ba jëkk waaye kéemaan bu ne nag Baye Cheikh Ndaw wane na fii ci ndar fii bu ne bu ne bu bu ne wane na fii ci ndar kéemaan bu rek wane na fii ci ndar fii ba sama ba bay daan tooy sama baay sa dànk damay jël waa kër gi yëpp yóbbu sama baay ni ko loo def rek baax na kon dañuy ñaan suñu borom yal na yàlla yokk leeram yokk leer jul ci yàlla fi teew yëpp ak ñu nu fi denc ñii ñëpp fii nag boo bëggee sa lépp baax wala sa lépp mat ak loo mënti am ak loo mënti toll dangay ñëw fii ak ku mun doon boo fi ñëwee rek sa lépp mat waaw moo tax Cheikh Fall mi nga xam ne dafa xereñ te xam te xàmmee moom teel ñëw fii yàgg fi lool xaritoo gouverneur tubaab yi xaritoo ñëpp ba moom du soxla ñaari mètre du soxla ñetti mètre boo ko seetee moom ay hectares yi hectares yi hectares la am te hectares yu mu am yëpp boo ko moom hectares yu mu am rek titre foncier la koy def te man sëñ Modou Abdoulaye Fandar dugal la ma ci néegam génneel ma kayitu titre foncier Cheikh Rafaal yëpp yëpp kayitu titre foncier yëpp la ma génneel tegal ma ko kon damay ñaan fii nag dafa bari na ay wëlëri Sëriñ Tuubaa ñëpp rek kuy kuy ziar rek fii nga ñu taxaw boobu fii mel melul nii suuf kese la bu ko defee bu taxawee ubbi ñaan ba pare dem nañ càkk njaay bu ba càkk njaay foofu ndax fee ñoom ngalandoog mag ñëpp ñëpp a nga foofu kilifa yëpp a ngi foofu su ko defee suñu boroom def bu ñu ñaanee seen soxla ba pare bu nu wàññi ku waatee fii nañu taxaw fa nu taxawoon tëjee fi seen ñaan nga xam yoonu Cheikh Fall kenn du moom daan na wax euh, euh, sama Mamoor Penda waaw daan na wax sama Mamoor Penda ni ko daf leen daan fekk njaareem mu bett bu guddi mu yee leen ah waaw suñu Mor Penda ah, ngeen def nii mu ah ñu dañuy dallu maam Cheikh Fall ni ah, dallu baax na waaye jóg liggéeyal sëñ Bamba nelaw sa bàmmeel waaw ah, loolu la Cheikh wax sama maam loolu la ko wax jug liggéeyal sëñ Bàmba nelaw sa bàmmeel loolu day yàgg loolu du tey man ku ne fii rek te nga ba am am lu baax rek Cheikh Fall la defar ku ñëpp àttanul muy sëñ Bàmba waaw la ko boot Cheikh la gore Cheikh Fall la gore mën na bi muy mënoon na bi muy eh, jël xéewal gi nekk fii ci askamara gii nga xam ne loolu moo am am am adduna am lu bare bare bari dafa gore rek moo na ko téye waaye téyewu ko da jox Sëriñ Bàmba bare rek topp ci ginnaawam ñu di sant di leen gërëm yi moo xaw a ko wax laa ilaha illallah laa laa ilaha ilaha illallah la ilaha illallah sëñ Mamour santaat nañ bu baax suñu baay Xaadim Diop si tënk yu am solo yi nga xamante ni dollikuwaat nañ fi bu baax baax di ko sant di ñaan suñu borom taxawaayam yàgg lool eh, ci liggéey bu rëy bi sëriñ bi di ko liggéeyloo waaye xam nga ni fekk nañ fi sëñ Mbay Kokki ñu gën ko xam si maam Saliou di ko ziar bu baax suñu waa ji sëñ Mamour ndax ka xam yaakaar naa ni yoon bu njëkk bi fi ñëwee mom mom lañ fi euh fekkat ko fi matnai ak mat nay at yal nañ ko fi yag fek ak suñu baye bu baax bi euh, seigne Mamour kon ma bàyyi la moom incha euh mam Saliou ni lay ziar bu baax. Euh, defe naa yow bokk nga ci ñi nga xamne ño fekke barab bi bokk nga ci ñi nga xamne tam ño saytu ba ba gis njabootu mam Cheikh ibrahim Fall gi fi nek lan nga ñu ci mëna baaxé ah barab bi de kéro bañ koy di bañ koy ki ni benn pa bo xamne Touba la jóge woon góor gi Touba jóge woon góor gi nag Makhtar mbay góor gi maxtaan mbay ba mu ñëwee ah xam naa ni bis keroog muy siyaare kiw maam Cheikh Rafal waaw mu ñëw nag ba mu ñëwee ba mu ñu xoolee mu expliqué ma ko dañ ko góor gi ah fii de yàgg naa fi romb am na benn paa bu dëkkoon sindoone ñu naan ko góor gi sameke sameke ne waaw Bokar sameke muy toujours day affaire bi da doon leer nag ma ne ko xaar a ah, lu ma ci gis daal moom xam naa ne kii wu maam Cheikh Rafaal yi fii lañ leen def waaw ndax góor gi wax na ko te kii la xaaral ba ci kanam nag ma xool ndax kii la wala dara waaye bu ma njëkkee jël peel bi ba góor gi ma jëlal peel bi nga xool ba ma xoolee koo ci xool rek nu mu meloon la mel dara yàqul ci moom ak ak ak sa table bi ak kurus bi ak kii bi xeet bi maam Cheikh Rafaal tegoon ci ci ci ci bopp bi ah, ñu ñu ci laa wootee nag ñoom ñi ñëw góor gi wootee ñu ñëw waaw si si Cheikh Cheikh Bintu booba mi ngi fi sëñ Cheikh Bintu ak ñoom sàmba aaw ñoom ñëpp ñu ngi fi waaw waaye nit nag moom loo mënti def rek fi bërëb bi dafa bari ay nit ñoo xam ne ñu ngi ci biir te ki sëñ Touba seexal dara yàqul ci moom nu mu meloon la mel bërëb bi dañ ko gën di toppatoo ak di loo fi ñaan nag mu nangu am na sërif naar yoo xam ne ñoo doon seeti sëñ Touba ñoom ñëpp ñu ngi fi kuñ naan Mamor Ereen moom mi ngi fi ñoom tamit nu mu mel na mel dara yàqul ci ñoom ne ñoom ñoom ñëmuñu ci biir waaw ku mel ne ay maam as kamara yi ngay gis ay Cheikh Ma Lamine Seck aman njaay maa bi ñooñu ay nit yàlla yu mag lañu ndax seen bàmmeel du toujours ci guddi guddi gu jot da ngay gis muy génn leer nit yàlla yi nag dañ fi bari wala yàlla yi dañ fi bari lépp dañ fi bari ñu gën a ndar nag moom dañ ko war a di bañ a seetaan. ngir topp seen chaîne Jazboul Mouride demal Google tàppi Jazboul Mouride bésul benn émission. mu YouTube ci page bi nga abonné te activer cloche bi ngir am notification saa ñu suñu vidéo chaîne di ko amit ci Facebook Instagram Twitter jezbul mi ngi ci ngir mam Cheikh Ibrahima